mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baalu àq ñépp te di leen baal yal na nu yàlla boole jégal ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk rek ragal yàlla ak topp yàlla di leen dénk di leen wax ni mu teeñoo rawante jëm ci yu baax yi balaa muy faat isaab seen bopp ci lépp loo xam ne xeetu njuumte la wala xeetu rëcc rëcc la fegal seen bopp nuur ci bànneex ndax kat ki muus dëgg mooy ki isaab ba kanam tey jëf ngir ëllëg te bañ a jëf ngir tey rek xam ne dee dana dikk alaaxira dana ñëw ki lott dëgg kii tala dëgg mooy ki nga xam ne daa toppal ba kanam bànneex rek topp bànneex rek te yaakaar nag dara ëllëg kooku mooy ki nga xam ne moom dafa lottu dëgg dëgg dëgg ki muus nag mooy ki nga xam ni ëllëg rek a tax muy jëf tey waaye yéen jaam borom subhanahu wa taala moo melal yonentam yi ak tànneefam yi ak ña topp na ñoom day dañuy gaawantu waxtu ne jëm ci lu baax borom bi ni innahum kaanu yusaarihuna fi l wa yad'uunanaa raxaban wa rahaban wa kaanu lanaa xaashi'iin am na ci ñoom ñoom gaa yooyu di yonent yeeg tànneef yooyoog ñoo ñu toppoon ci seen i tànk ni waxtu ne dañuy gaawantu jëm ci yu baax di woo seen borom di ko ñaan waxtu ne di xëymem la ne fa moom te di ko ragal waxtu ne ndax ñoom ñu nit ñu ragal yàlla la ñu woon borom waxaat ci benn aay ni ñoom day ulaayka yusaaruuna fil xayraat hum lahaa saabiquun ñoom de dañuy gaawantu jëm ci lu baax te ñoom ñoo cay jiitu ñëpp mbokk yi ñooñu suñu borom di junj yonent yi tànnee fii ñaawanti seen tànk gaa yu baax yi ñu xam ñoom ñooy tànnee fii ñooy royukaay yi ndax ñoom yàlla jox leen bëti xol ba ñu mën a gis xam la baax ak li nga xam ne moo du safaan ci leeru ngëm gi leen yàlla jox ak dégg koo xam ne dégg nañ ko alxuraan karim xam ne de xam dayab la sàkku xam tolluwaay ba xam ne rek àjjana moom dara tollu ni xam ne yitam waxtu wañ koy sàkkoo day dem waxtu yi day faat fi ne waxtu yi nga xam ne bàyyi ngeen seen lépp ñëw fii di tudd yàlla di xaar waxtu yi dem boo ko defutoon léegi tey mu jàll fekk loo ci amutoon ñàkk nga ko moo tax borom sanu taala xam ne ñoo ñoom waxtu ne day njëkkante dañuy gaawantu te ñii yàlla jox leen bëti xol ba ñu xam fa njëriñ la nekk xam ne àjjana dara gën a ko dara gën a moom rek la ñuy sàkk nun ñëpp borom bi tàggaleen ñoom gaa yooyu ci alxuraan karim ngir bëgg ñu nekk ay royukaay ci doomu aadama yëpp ci buy gëm yàlla yëpp doomu aadama bu ne suñ borom jox na la ay matuwaay yoo xam ne mën nga cee jaar pour njëkkante jëm ci lu baax ndax suñ borom jox na la wér ci sa yaram wér googu mu la jox doonte benn fan la donte ñaari fan la donte yi la lu néew néew mën nga caa gaawante balaa wéri day ñëw ndax wéri da ci teg suñ borom jox na la waxtu dese nga des lu bon bon donte ñaari fan la donte ñett la donte fukki fan la doon at nu mën a toll kon am nga waxtu lu mu ne nii loo mën a njëkkantee gaawantu balaa muy jeex suñ borom jox na la ak féex nga wan cee gaawantu balaa féexe day dikk te benn bu ne ci yooyu dafa am safaan ndax bu wér amee rek wér day mooy safaanam war ngaa gaawantu balaa wéree dee ñëw bu féex amee nga gaawantu balaa féexee dee ñëw bu am amee nga gaawantu balaa ñàkk ñëw bu dund amee nga gaawantu balaa dee nga ñëw balaa dee di ñëw ndax benn bu ne ci yooyu am na ab safaanam loolu moo tax doomu aadama war a góorgóorlu ba farlu ci yooyu mu soxlaa leen te bokk na ci gaawantu jëm ci lu baax borom sonu taala eh, kon dénkon lool bu baax a baax wax ñu gaa yooyu tànneef yonent yooyu tànneef yooyu yoo ñu foroon seeni i tànk ñoom foofu lañ doon jaar loolu rek itam moom la nu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dénkoon waxoon ca bindee ni na ngeen juróom balaa juróom a ñëw di ki nga xam ne la ko yéen saa sam digle sëriñ bi ni boo dee ndaw góorgóorlul ndax bu ma xasee dikk ma naam lu bari loo mënoon dootu ko man boo amee wér nee na nga gaawantu ndax yori dee ngi ñëw nee na boo amee nga gaawantu balaa ñàkk ñëw ndax am moom ñàkk rek a ci mën a tege waxuñu ne faaw dana ñëw waaye ñàkk rek ci mën a tege boo féexee féexa di it moo ci moom rek moo ci mën a tege booy dund it faaw dee rek moom mooy li nga xam ne mooy li ci mën a tege yéen jaam yàlla kon nag ah, nañu gaawant ci dund gii yàlla jox xam ne day jeex na nafsin taaxati moo du fi bàyyi kenn kullu mën naa la faan du fi bàyyi kenn nañu gaawantu jëf yu baax gaawantu ci topp yàlla yi te xam ne posé yi duñu sax mukk kenn ku ne posé ba la yàlla may poseeb nga am ak wér du sax poseeb nga am dara du sax poseeb nga amuk féex du sax poseeb ngay dund du sax dara du saxut kon nag nañ gaawantu bu baax a baax a baax a baax yàlla joxut kenn garante ci ni yooyu da nga ci mën a mucc kon nag nañ góorlu te kenn du ci mucc itam eh, buy dund moom faaw dee dina ñëw eh, kon nag yooyu ñu bàyyi xel yooyu bu a baax a baax a baax a baax kon yow jaam yàlla bi jamono ci sa kanam joo xam ne ñett mbir nga am jamono ji nga xam ne wéy na ba noppi ak ji nga toll ak ji nga xam ne mi ngi ci sa kanam ji wéy moom wéy na mënatoo ko dabaatal ji ji nga toll moom boo góorgóorlu lee mu jàll di ci sa kanam rek kon nga bàyyi nga bàyyi kon moom yéene rek nga ci am yéene def fas yéene yéene ju baax ci fas yéene boo ko fekkee jàmm def ci aw yiw def ci lu baax su ko defee boo ko fekkewut sa yéene suñu borom bindal la ko boo ko fekkee ba def ca suñu borom loolee nekk mu nekk tawféex yéen jaam yàlla borom subhaanahu wa taala digle na ba tàyyi ci téere ba ni nañuy gaawantu jëm ci yu baax yi waxoon ne wa saari'u ila maxfirati min rabbikum wa jannatuha wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin na gaawantu leen jëm ci njégalu seen borom ak àjjana joo xam ni yaatoo na ni asamaan ak suuf ni asamaan toll ak ni suuf toll àjjana yoo xam ne yaatoo na noonu yàlla nee ma waajale ko ma waajale ko ñi nga xam ne way ragal yàlla lañ gaawantu nag buñ ko waxee mooy rek eh, mooy yàkkamti def si yitte yëpp ndax loo xam ne boo ko sàkku ci waxtu rek day wéy te bu wéyee réccu dana ñëw loolu kon moom la ñu tuddee gaawant rawatina loo xam ne bu faatee lu rëy rëy dana faat kon xam ne ne àjjana dara gën koo rëy borom bi ne moo gën a yaatu asamaan suuf kon mbokk yi ni góorgóorlu baax a baax jëma màngo suñuy waxtu ci lépp loo xam ni aw yii la waaye lépp loo xam ne loo baax lay doon boroom bi sax ci aay yooyu am na lu mu ci teg ci anam yoo xam ne mënees na caa gaawantoo jëm ci lu baax mu waxoon ni alladiina yunfiquuna fi siraa'i wa darraa ñi nga xam ne dañuy dundale dañuy dépenser seen alal ci yomb yomb amee wala bu jafe-jafe amee dañuy nëbb seen mer waaye dañ may ni ñi jàmm waa maanaam dañuy may nit ñi jàmm waxtu ñu leen tooñee ñu waaye dañ yàlla nit ñi ñuy def loo def kat yooyu daal ñu ba def lu baax yooyu daal suñu borom bëgg na wala yuhibbul muhsinin tegoon na ci itam ci anam mi nga xam ne des na cee gaawantoo jëm ci lu baax wala jëne isaafaaloo faayisatan aw zalamu anfusahum ñi nga xam ne bu ñu defee benn ñaawteef bakaar bu mag wala bu ndaw daal di seen xel daal di delloo seen xel ci yàlla daal di koy jégalu te xam ne yàlla rek mooy ki jégale eh, te bañ a nuur ci seen tooñ yooya kon mbokk yi nañu góorgóorlu kenn kone démb moom jàll na mënatoo koo dabaatal suba xamoo di nga fekke tey rek nga am kon tey jooju lépp loo man ci lu baax ci loo xam ne lu ñu farataalut la sa kemt laay kattan li ñu farataal ci yow kazalika nga góor sa kemt laay xam ne waxtu yu moom soo ci màngut soo góor góorgóor def ci la nga war a defi day jàll rek bu jàllee lu mu la yóbbaale toon loolu ñàkk nga ko su ne démb jàll na wéy na lu mu yóbbaale rek loola xas na wéy kon nag nañ doolee farlu bu baax a baax a baax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 ودس بنا وخونا وكن لنا وهب لنا وتنختام ربنا وصليا على النبي وسلم وقض به حاجة كل مسلم